السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكيني جاكا لولتي أدو نبي تي ريوني أد بتم ريو نيونغ لين دي نيو دي لين زياري كي وحق ين موي سن بوك سري مصطفى نغم دي بورت برول آي دي وحق تطورو آي يب دي زياري سنو كليفة ديني خليفة بايو نيو كن دي لين زياري دي لين يانا اليالة يلا يقل لين في تميلين وير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي أه السياسي الإسلامي كورسي في لسوفيسم نكوي وقت جمعية الإسلامية لخدمة التصوف في مثل سري ما بشيخ مباكي خادم أو بأك مولي من كبوكل نيب نيونجي أم نقر دي ميتت لو جمع فنيين يجنو dégg ci benn suwaay suñu wax Omar Sall muy wax lu jëm ci tariqa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Cherif radiallahu taala anhu ci lu ñàkk tegin ci laal pas-pasu ay millions yi millions yi doomu aadama loolu day moom la AIS gisoon moom la yëgoon depuis 2014 jotaay bu ne def nañ ko artu bu ne def nañ ko plateau bu ne dem nañ fa wax fa ba àdduna bi yëpp xam ko réew mi yëpp xam ko booba lii rek lañ doon daw lii rek lañ doon bañ ñoo ngi wax ak état ni ko mu gën a yokk taxawaayam ndax wax yu mel nii mën na indi guerre civile ndax kii dafay laal dafa laal pas-pas yi ay millions yu doomu aadama te pas-pas dafa foor ci doomu aadama foor ci nit baat bi muy wax di ko mokkee muy baatu yàlla te yàlla subhaanahu wa taala wax ni wadkuru llaha kathiran wa sabbixuuhu bukratan wa asilan yàlla ni dee leen tudd yàlla lu baree baree baree baree bare di leen ko sabbal ci suba yi ak ci ngoon ya lu doy naka xadratul juma si tariqa cheikh sidi ahmad tijaani sharif radiallahu taala anhu ñu ciy tudd ay baatu yàlla ñuy ñuy baat yu sell yu yiw ñuy baatu allah allah mu koy tudde noo xamee ni dangay ngay yëg ni kii mi ngi ñàkkee teggin baatu yàlla da ngay yëg ni kii yar nekkul ci moom teggin nekkul ci moom loolu nag metti na képp ku bokk ci ahlu tasawuf metti na képp kuy taaliba cheikh sayid ahmad tijaani sharif radiallahu taala an képp ku tënku ci mag ñi loolu metti na la ci umar lii mu wax jëme ko ci tariqa bi bu ko defee nag ñoo ngi waxaat état ni ko na jël ay matukaayam ba lii dakk ci réew mi lii mën na jur musiba bu bare mën na jur jëyya mën na it jur guerre civile te ñaanuñu ko yàlla kon su ko defee ñoo ngi wax ni état na jël ay matukaayam ci wax yu mel nii ñu def taxaw ci taxawaay yu mat sëkk ay nag li mu man mi ngi koy def gis na loo xamee ni jaaduwul du dëgg du yoon taxaw nañu wax ko dénoncé nañu ko ñoo ngi tàllal loxo état mu gën a mu gën a mu gën a yokk ay taxawaayam gën a jël ay matukaayam ci jëmm yu mel nii nga xamee ni mën nañoo taal réew wala mën nañoo indi musiba ci réew ndax pas-pasu nit dafa foor ci moom kooku nag ñoo ngi wax ni ñu gën cee bàyyi xel ndax xadratul jumaa na mu foore xadratul jumaa ni mu rëye xadratul jumaa ni mu màggi ñu ciy tudda baatu yàlla muy baatu allah allah nga di ko waxee noo xamee ni day mel na sabotaas di mel na ñàkki tegin kon ñoo ngi wax ni loolu ñoo ngi koy métitlu ñoo ngi koy naqarlu ki nekkoon ci kàddu gi mooy seen mbokk Serigne Moustapha Ngom ci turu AIS والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته